rubrique euh, actualité ak euh, Aliou Sow nu ñu leen ko waxee woon euh, donc di tàmbale ak chavirement bale am ci Mbour horreur sur la ville Mbour qui enterre ses morts qui pleure et enterre ses morts Aliou Aliou Sow oui euh, horreur sur la sur la ville enfin mmh. horreur horreur sur la ville mmh. euh, donc la ville de Mbour mmh. justement qui pleure ses ses morts mhm. qui pleure ses morts parce que dafa dafa dafa am ay doomu euh, Sénégal ñu ci bari soxe ko ci béréb boobee. Mm-hmm. eh ben jékki-jékki euh, euh, comme ça se fait ces derniers temps. Mm-hmm. ne dañuy dem jéggaani. Mm-hmm. maanaam dañuy dem bitim réew. pour immigration. yàlla def ni. am na ñuy rëcc. yegg am na ñu dul yegg. ñu ci bari du ñuy yegg. et donc fan yii yëpp ba démb ak bërki démb mhm. béréb boobee di mbuur mhm. eh ñi ngi euh, euh, euh, am naqar am mhm. ah, ñi ngi naqarlu ak mettitlu li nga xam ne moom moo leen dal jël seeni doom yooyee nga xam ne ñi ci bari dañu dee ay centaines dañu dee ci ndox mi dañu lab parce gaal yi dafay fees ba pare xëñ na Mm-hmm. période bi du période bu baax pour dem euh, ci euh, immigration boobu jëmale yoonu Espagne. Mm-hmm. yàlla def ni ñu ci bari li ci ëpp ay centaines je dis bien. Mm-hmm. dañu dee. ci ndox mi ñii feeñ nañu. ñii feeñuñu. ñu jot feeñ nag bari nañ trop trop trop trop trop. pratiquement une centaine. la ñuy suul bërki démb. et ça fait que effectivement. Mhm. Sénégal yëpp. Mhm. ñi ngi wax te ji au-delà que. Mhm. ñi ngi mettitlu ñi ngi wax ci ce drame là qu'est l'immigration. xam nga suñu république. dafa faire valoir la liberté d'aller et de venir. liberté d'aller et de venir boobu. ci socle république la bokk. manam ci biir réew mi fu la neex nga déplacé wu. waaye dans un cadre légal. fu la neex aussi nga dem ci bitim réew. ci cadre bu légal. Sénégal doon réew moo xam ne dafa am ay difficultés. pour euh, euh, xale yi nga xam ne ñoo fi juddu. am ñaar fukki at am fanweeri at am ñeent fukki at ba des fois am juróom fukki at. gisuñu ngëneel ci seen réew ñu xalaat ni dañoo war a dem wuti teraanga loolu moo indi problème yii yëpp am ndax pour am ay visa dem émi def émigration eh ben day da di poser un problème parce que kenn du leen ko jox donte réew yooyu ñuy dem ñoo ñee fa dëkk bu ñu bëggee dugg ci réew mi dañ leen di jox visa facilement pour ñu ñëw Sénégal waaye par contre effet inverse bi du am parce que doomu sénégalais yi bu ñu bëggee dem. certainement les motivations ne sont pas les mêmes ñii dañuy ñëw certainement pour vacances. ñii dañuy ñëw ñii dañuy dem ñii dañu bëgg a dem pour wuti teraanga. te amaana xëy na ñoom nee nañu seen réew yi bari na ay problème mu ba nga xam ne. mënatuñu dékku yenn immigration yi. à juste titre bu la neexee ñu def ko. Mm-hmm. waaye doomu Sénégal yi ak doomu africain yi en général ñu ci bari dañuy xalaat ni il faut ñu dem parce que loolu rek mooy tax ñu mën cee génn ndax amatuñu yaakaar ci seen réew te du Sénégal kese pays dëkk yu bari la surtout les pays euh, d'Afrique subsaharienne mm-hmm. maanaam ay Malek ay Togo ay Nigéria Guinée-Bissau entre autres euh, mm-hmm. euh, euh, Mali mm-hmm. ba ci Burkina Faso léegi nag mbir maa ngi noonu quest qu'il faut faire par rapport à justement ce drame de l'immigration nan la ñuy def pour résoudre ce problème je crois que ni amul nu ñu mun a def léegi ci teew bi teew nii pour lijjanti problème bi ce n'est plus possible ou ce n'est pas encore possible si je peux le dire comme ça ce n'est pas encore possible parce que pour xale yi mën a toog il faut xale yi am yaakaar ci réew mi amuñu ko woon ci régime u Abdoulaye amuñu ko woon ci régime u Macky Sall te amuñu ko nii nii nii ci régime u Bassirou Diomaye Faye mu doon yaakaar bu tas ndax li fi xew ci réew bi xale yi voté ndax yaakaar ndax ay promesse xale yooyee tey jii nii ci juróomi weer juróomi weer. si la ne noonu noo xel dalul il faut que ñu dem. ndax bu yaakaar amoon dëgg. duñu xalaat naan dañuy dem ndax dafa am lu ñu leen waxoon. ci seeni dundin bi nar a ñëw après bu Macky Sall demee. dañ daan wax sax ni il faut que Macky Sall dem pour ñu mën a régler problème immigration bi ndax buñ Macky Sall demee espoir dina ñëwaat yaakaar dina am ba nga xam ne xale yi dinañ toog parce que ñun ñi nga xam ne dañu bëgg jël réew mi bés bu ñu ko jëlee dinañ leen jox liggéey ba mu mët sëkk ku nekk nag daan interpréter loolu nu la neexee ba ci man mii hmm. bi ma daan wax ni le régime hmm. le ce drame de l'immigration hmm. du ci fatu Macky Sall du ci fatu Abdoulaye Wade te sax du ci fatu Abdou Diouf fut bi ci kan te beneen président bu ñëwee aussi waaw du ci fatam ndax problème bi. Mhm. lu yàgg la lu ñu waroon lijjanti waaye système bi fi nekk. Mhm. di organiser réew mi depuis Sénégal bi mu amee indépendance doxaluñu une bonne politique de jeunesse. Mhm. anticiper wuñu ci il y a cinquante ans ñu ne woon Sénégal ay juróom juróomi juróomi millions yi sénégalais lañu te juróomi millions yooyu pratiquement genn wàll gi. ay jeunes lañu moins de trente cinq ans. mu wóoroon leen ni on a ay service de démographie fii dans ce pays là ay ñoom ANSD ak yu demee noonu yàgg na fi. amoon nañu ay nit ñoo xam ne ci réew mi seen liggéey moo doon organiser réew mi. statistique yaa ngi fi woon xam na ñi sénégalais ku ci juddu boo nekk ñaata góor à peu près ñooy ñooy juddu si ñaata jigéen xam na nañu góor yooyu ñaata doom bu ñu màggee ñaata doom la ñuy am xam nañu à peu près góor yi ñaata jabar la ñuy am à peu près bi ci famille yi ñaata nit la ñuy doon. approximativement ñu waroon sooraale ni ñooñu dañu war a jul juddi ëllëg te ñooñu dañu dañ leen war a mettre ci ay conditions pour prévoir seen ñëw ci àdduna fii ci biim réew hmm. waaye amaana xëy na liggéey boobu defuñu ko parce que bu ñu ko defoon xëy na lii yëpp du am donc mbir mi ce n'était pas Abdou Diouf encore une fois et je le je le disais souvent ce n'était pas Abdoulaye Wade et ce n'était pas Macky Sall pendant ce temps-là parce que yàggul moo tax ñu koy wax on disait que ni Macky Sall bu fi jógee rek ndax dictateur la moo tax xale yi di daw ba sax waxoon ci Papiko Takara yàlla na ko yàlla yërëm dafa daw parce que tout simplement eh ben Macky Sall est un dictateur Macky Sall est lii yépp fautu Macky Sall la bés bu fi Macky sàll jógee. mbir bi dinañ ko régler définitivement ba benn xale dootul xalaat bi ay leader politique comme ñoom Ousmane Sonko bu fi Macky Sall jógee problème bi dina régler yàlla dafa ne ça fait juróomi at maintenant. ci juróomi at yooyu ba tey on se rend bien compte Fatou Diouf que ni tey. la waaloo gën a ay juróomi at. juróomi weer. Hmm. c'est encore pire bu doon juróomi at sax ñu xam mais juróomi weer tey je pense que ni ñi da jot a dem ci immigré. Hmm. ci juróomi weer yi. est-ce que dem na. ci hmm. immigré ci dernier mandat Macky bi comme quoi. ce n'est pas forcément ce n'était pas forcément la faute de Macky et ce n'est pas aujourd'hui comme ni ma ko daan waxee beneen président bu fi ñëwee sax du doon ci fotam waaye dafa mel ni fan yii de. kenn waxul li fotu Jomaay la kenn waxul li fotu Ousmane Sonko la ku nekk dafa ne tek kenn sax à communique communiquer conseil des ministres bi démb bi. waxul ci mbir mi wala dem seeti ñoo ñee nga xam ne. eh ben ay accident am na fi de ay déplacement am na fi ci yu bari. waaye demuñu seeti waa kër yooyu yee nga xam ne dañu am naqar seen famille disparue pour mën a sax dëfal leen Bougane Gueye wax na lu am solo nombre de personne yi dee raw na xaw ma ñaata raw na ko ñaata ci pourcentage par rapport ak nombre de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo dee ci ay transport accident de la route kon deuil national man je trouve que ni ça aurait une bonne idée xaw ma ndax rendre ngeen compte ci le nombre de personnes yi nga xam ne ci biir semaine bi dee nañu fii ci réew mi parce que dañoo làpp pourtant kenn coow ci lu bari pourtant opposition bu bees bi yàqu ci dara euh, kii Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko et c'est bien comme ça parce que mbir bu amee doo yàq ji kilifa réew mi nga ne moom fëtam la tam ko dëmm comme ni ñu daan def ak Macky Sall juste rek pour am benn objectif récupérer nguur. pour pourtant ay élection ngi ñëw man dama gën ni mbir mi du du problème euh, euh, euh, Bassirou Diomaye Faye du ci dara man dama gëm ni Ousmane Sonko du ci dara li ñu war a lijjanti ñoom seen bopp danañ dem ba jóge fii loolu du ñu lijjanti problème bi xëy na dañu léegi une partie de ce problème là mais mun ñu ko léegi parce que loolu lu ñuy lijjanti la ci ay at parce que xale yi bu ñuy dem di wuti bitim réew c'est parce que dañuy dem wuti teraanga te teraanga pour nga am ko il faut nga liggéey te liggéey boobu am na ci réew mi moo tax ñuy dem donte tax promettre woon nañ leen ne leen ñun bu ñu ñëwee le problème dinañ ko régler très rapidement moo tax xale ñu ci bari yaakaaroon ni. Mhm. projet boobu ñuy wax bu ñu ñëwee. ñoom mhm. dootuñu soxla ci génn dem bi bitim réew. et on se rend bien compte ni c' était totalement faux te mhm. yàlla xam na ni. fii laa ko doon waxee petit déj. ne bu fekkee ne loolu kese la. eh di ngeen dugal seen loxo ci ëkk ndax du loolu mooy lijjanti problème bi pour Sénégal pour ñu régler problème immigration bi. il faut que ñu créer ay société fii. def ay formation en apprentissage. d'accord fi xam ne mooy solution bi ñu dem mm-hmm. liggéey fa. aussi tamit est-ce nekkul xale yi tamit am nañu liggéey bu ñu fi mën a liggéey mais dañuy am ñu ci xeeb ab liggéey. waaw parce que. Mm-hmm. lu tax doo ko xeeb doo ko xeeb. waaw mais euh, saa yoo xeebee. Mm-hmm. li nga xamante ne moom nga war a liggéey bis bu nekk nga rombanteeg ku ciy jariñu waaw loolu oh. tamit dëgg la. gis nañ ñu bokk ci waaw. waaw ndax tamit daf ci am lu am important. Sénégal mënta pauvre pauvre ba liggéey bañ fee am. Mhm. dari dafa am ñett yu fi xew. am na ci xale boo xamante ne fi mu teg bëtam. Mhm. ak ci ki mu teg bëtam. Mhm. la kooku am ak la kooku daj ba am ko xamu la mu am rek la gis. am ci koo xamante ne ci biir këram. mu nga ñu nga fay daj loo xamante ne dafa bëgg a régler sur le coup situation bi. te xamul lan la yàlla wërsëgalee ci boppam. am ci koo xamante ne yàlla dogal na am njàngam. soriwul te kattanam may na ko pour mu mën a liggéey mais est-ce que nekkul kuy taamu la mu war a liggéey ak la mu war a am. léegi xam nga lan la si bi am yàlla yàlla bay sa tool. dañu nekk ci réew boo xam ne problème bu amee ñëpp dañu war a dëkkoo problème bi ñi ci kaw ba ci suuf. waaye mënuñu nekk ci réew boo xam ne ay nit ñoo bari te alal ñi nekk ci suuf amuñu te loolu moo fi xew depuis ñeent fukki at. waaw ñii am rek kay am problème boobu bu ñu ko lijjantiwu. ñi ñàkk di ñàkk ñi ñàkk di ñàkk. non seulement ñi ñàkk ngi ñàkk mais ñi ñàkk ñooy gën a ëpp. parce que njuddu mi ngi am. ay nit a ngi juddu. il y a 20 ans am nay xale yu juddu amoon ñaari at ñetti at xale yooyu 23 ans la ñu am ñi amoon 10 ans il am nañ tey jii nii ñooñu bëgg nañu liggéey bëgg nañu am jabar. bëgg nañu am fu ñu dëkkuwaay bëgg nañ di mën a fay courant bëgg nañ di am jabar di fayal seen doom ñuy dem jàngi bëgg nañ ñoom yow sax suba teel ñu dem di xëy di dawal daggittu oto <laughs> bëgg nañ loolu di dignité bi nga xam ne dafoo war nekk ci nit bëgg nañ di col tabaski du ñu am stress su naan dañuy wut ay xar alors ko boo nekkee bitim réew bu la neexee nga yónnee 200 wala 300 euros sa yaay pour mu pour ñu jënd xar jàppalewaale paa bi loolu munoo ko am fii ci réew mi amul amul bu fekkee ne am na ngeen wax ma ko. amul amul nit ñi ñoo sonn amuñu liggéey amul waxuma sax waxu kër. da ngay liggéey sax ba dee doo am kër. pourtant pourtant ñi ñu ñi ñu dénombré si ci victime yeeg yooyu jàpp gis nañ ci Ari Sow ñoo xamante ne am nañ ay liggéey. Mhm. boo am nañ ñoo xamante seen liggéey tane na nee nañ mais comme ni ñu wax dañuy bëgg wutiwaat lu gën peut-être loolu mooy problème bi dañuy visé wu ci loo xamante ne. xam li gën mooy lan. waaw mooy sa liggéey sa 200 mille li ngay def nii li ngay li ngay liggéeyee nii li ngay gagné par weer. waaw yaa ngi liggéey yaa ngi suturaal sa a correct jéem sol lu xaw a set. Mhm. waaye kese doyul parce que 200000 yooyu boo amee 150 mille yoo war a fay loyer war a fay cinquante mille francs euh, euh, électricité. Hmm. war a fay mille ndox. war a dundal xale ku ci feebar nga ku ci sëqat nga dem jëndi médicament war leen dundal chaque jour añ reer ndékki. waaw ah sëñ Fatou loolu mënul nekk. dëgg la c'est vrai voilà loolu. mënul nekk. boo mënoo ko def vingt ans après nga dee feebar sa jabar mooy feebar. am ay machins bëgg ëmb am ay problème. déedéet mais ba tey moo gën jël gaal. moo gën jël gaal dem. jël gaal gaal moom la. yooyu moo gën fuuf. man waxuma jël gaal dama ne dama ne dama ne man waxuma dara man dama ne rek man. ñi nga xam ne dem nañu bitim réew. Mm-hmm. yàlla dimbali leen ba ñu yegg. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ma je connais des éboueurs xam nga éboueur mooy ñaan mooy ñii di am na koo xam mm. doom ji sama xarit la mm. doom ji sama avocat jigéen moom éboueur la woon éboueur mooy ñii di mm-hmm. euh, ñi di ñi di ci tuur mbalit bi taxaw di tuur mbalit bi éboueur la woon à la de Paris doom ji avocat la tey góor gaa ngi fii jàpp ñàmburam tey teg la ay tànkam 17 heures 19 euh, heures 14 euh, heures jàkk jëlee jëm ñoo toog jàpp ñàmburam teg la ay tànkam di lekk di di dundee pension woo pension ëpp na 1 million 500 mille mi ngi toog jàpp ñàmburam croiser les bras góor googu su demul woon Europe il y a 50 nan lay def bu demul woon juróom fukki at ci ginnaaw nan lay def am na ñoo xam ne bërki dem lañ jóge fii il y a 5 man waxum man waxuma dara man xam naa luy immigration xam naa man doole bi ma man immigration may man man xam naa doole bi ma may. Hmm. ak liberté bi ma may man man xam naa ko suñ ma dimbaliwul woon samay waajur yóbbu ma bitim réew man xam naa man lan la ma may doole boobu. loolu moom kon bu kenn wax ni man waxuma bu kenn bañ dem. parce que man pour man loolu sax affaire iñaan la parce que munoo mais mais toog fii ci réew mi yow. Mm. di xoolee chaque jour doo lekk doo naan gis sa yaay gis say problème amoo problème. mais loolu chaque jour nga toog mais loolu ak dee. gi nañu waxante dëgg te yàlla benn la. Mm-hmm. boobu nga koy rongé di ko rongé ba am feebar di tux cigarette di def ay affaire di naan ay café di sonn doo lekk ba doy ay vitamine di jeex chaque jour. doo amul am loolu mën loolu ak dee benn la. benn la c'est la même chose am na ñoo xam ne dañ naan lu am baax na. rëcc la rek 50 50 la dama ne man waxuma ba kenn dem waaye ku dem tamit gis nañ li fa xew. Hmm. ñi di dem bitim réew di ñëwaat du ñu delluwaat lu tax du ñu dellu lu tax ñu delluwaat ñi di dem bitim réew di ñëw fii vacances. ñoom moom ku xool seen salaire di ñëw seen i waa kër ñoom di dem noonu di ñu di di lu tax bu ñëwee. ku xool seen salaire moom moom si. lu tax ñu toog sëñ soxna sëñ bi xoolal waa ji nee nañ ma ne am na ko xam ne rakku rakku mbokk doomu bàyyiwu Cheikh Issa Sall Mm-hmm. moo doon diriger gaal gi neen dafa bëggoon daf ay doomam la bokkoon nañ ci gaal gi neen dafa bëggoon bu yeggee ñu dem ñu faj ko ak maa li mu wax mm-hmm. parce neen dafa feebar parce nag naa la wax dara de même boo amul këyit wax leen dëgg te yàlla tax mais boo amul këy dinañ la faj ba pare ñu dem a seet nañ la lay delloo sa bitim mm-hmm. waaye feebaral fii nga dem hôpital Fann yow sa réew yow yow du cuur gasal cuur gasal waaw ñàkkal xaalis nga dem taxaw buntu hôpital daal dinaa dem ma de te du tere kenn mu dem bañ a dem demal yow sa réew yow hôpital Dantec buntu hôpital ba dem fa léegi nii boo paree léegi xaañ dem ma yóbbul sama oto nga xool ci bunt bi noonu mbaar bi nekk ci entre buntu hôpital bi ñi fa toog ñëpp genn wàll bi yow xam nga la ñuy xaar kenn romb pour ñu ñaan ko parce pharmacie baa ngi jàkkaarloog ñoom xam la ñuy xaar mm-hmm. pour nga jàpp pour pour kenn ku rombee ñu xaw a mu xaw a nduru correct wala ku xaw am tuuti daraja pour ñu ñaan la benn junni ndax dañu dem ci dañu dem ci pharmacie bi jàkkaarloog hôpital Dantec ñu ne leen ordonnance bi 9000 la mais ñoom 2000 la ñu yor. mais ne woon nga nekkul photo président mais kon loolu ngay expliquer ni photo kat la. xam nga lan la photo système bi la ni mu demeewul la man. bi ñu doon bi ñu doon wax Macky Sall mbir mi. Cheikh jàng bi wallaay bi ñu doon wax Macky Sall mbir mi fii laa toog. ne leen c'est pas vrai bàyyi leen li ngeen di def di ngeen tam diw dëgg. ba mu jógee fii te yéen boo leen ñëwee wallaahi bu boo leen réglé problème bi ñëw leen ngeen ne ma tuug xaj. bëgg a toog mooy tax. man maa leen waxoon loolu. waaw waaw boo leen ko réglé. ñu ne nee nga tu xaj parce que xamoon naa ne du dëgg. objectif bi moo doon tam nit ki dem pour mu dem pour ñëw ñu jël nguur gi léegi nag ñëw nañu jël nguur gi espoir ale yaakaar bi ñu amoon gëmoon nañ ni projet bi bés buñ fiy jógee Macky Sall di fi jóge ñu lijjanti ko xale yëpp gëmoon nañ loolu. waaye lu tax ñu dem léegi yaakaar a tas wala day dañu xaw a am gàcce mënuñu ko yu parce que dañu ruus xamatuñu fu jëm xamatuñu kan moo baax xamatuñ kan moo leen di wax dëgg seen yaakaar tas na ñu ne xaaral sonn naa. sama mais wax nga ko pare nee nga système bi la déjà. moom moo yàq dès le dès le début mais dafa am ñoo xam ne leen gëmloo woon nii. non ab xam nga problème immigration di fi def ñaari mandat doo ko réglé. xam na nga koy réglé il faut beaucoup de temps sëñ mais réew mi lépp la ñuy jéggaane. waaw waaye li ngay jéggaane yow. Mhm. yow bi ak sa jasneer bu rafet bi. Mhm. ku koy defar ñaata nit ñooy liggéey fi ñu koy defaree. waaw waaw bu ñu ko doon defaree fii nag ana suti tëj na ana ñoom Sodefitex. tëj na ana ñoom Bata ana seen dàll yu baax yi ngeen sole xale jigéen ak seen robe bi jekk am. maanaam fu ñu koy demal taxaw ci mbedd bi nga ci tali bi euh, Seydina Limamou Laye rue euh, avenue Seydina Limamou Laye autoroute bi noonu. nga xool ñaata xale ñoo yor ay produits di ko jaay pour jëm ci am bénéfice 2000. par jour dañ leen ko jox Sinoa yi ñoo leen ko jox ay conteneur lañ ko jëlee bitim réew conteneur yooyu dafa am ñu ko liggéey produit yooyu ba indi ko ba mu yegg Sénégal. Hmm. yooyu noonu ñoom ñëpp tey di ku leen lijjantiloon mbay mi ku leen lijjantiwoo nan la ñuy defaree tracteur ku leen lijjantiwoo nan la ñuy defaree matériel puso yow puso yow sa réew mënoo ko defar. puso puso cure-dent cure-dent boo lekkee ba pare moom yi nekk sa bëj nga bëgg ko dindi cure-dent boobu bant boobu desitu banti garab yi ñuy jëlee fii la desit yu bon yi moom la ñuy defaree cure ñëwaat jaayaat la ko yow yow sa réew. waaye yooyu yëpp ay nit ñoo koy defar ay entreprise ñoo koy defar ay nit ñooy liggéey foofu waaye yooyu pourquoi duñ ko defar ci réew mi pourquoi duñ ko defati yooyu te dafa jël temps te dafa am ñoo xam ne ñoo waroon liggéey liggéey boobu fanweeri ak ñeent fukki at ci ginnaaw waaye liggéeyuñ ko waaye ñooñu ay milliardaires la tey ci ci àdduna bi ci Sénégal fii moo tax ma leen di wax ay les grands hommes politiques la ngay gis nag ñu bari am ay kër point E séddoo fan résidence fan bi ngeen gis nii ñoom dañ ko séddoo ci seen biir waaye état du Sénégal moo ko moomoon léegi ñoom ñëpp ay propriétaires lañ alors que tubaab bi dañ leen ko bàyyi loolu ñoom pour nguur gi. képp ku nekk danga nekk ci nguur ñu mën na ko jox ko muy logement de fonction waaye lépp séddoo nañ ko ñoom ci seen i biir ba ci régime Abdoulaye Wade bi tey jii nii dem nañ xool Fandrisa ñu fa dëkk ñëpp dem nañ ngeen laaj Moustapha Niasse këram Fandrisa ak ñoom Souleymane Ndiaye seen kër yi fu ñu ko jëlee nan lañ ko jëndee ak kër googu fu mu jógee ngeen dem xool origine de propriété bi kër googu à la base lan moo taxoon ñu defar ko fan résidence boobu réew mi dañ ko pillé réew mi dañ ko yàq. réew mi gars yi dañu lekk alal bi. réew mi gars yi dañu sacrifier les générations ki devaient venir. mais réew mi am njàng am na fi kon ngoro fi amul. non mais mais ngor fu muy amee. voilà mais ngor fu muy amee ngor bu amoon di nga gis ay hommes politiques nekk milliardaire <laughs> vraiment bu amoon di nga gis homme politique kuy liggéey nekk homme politique kese kese kese nga am ay milliards yow foo ko jëlee. ngeen ne ngeen ne xale bi bu mu dem ah d'accord ngeen toogal de quoi. toogal toogal toogal nga souffrir après nga dee. uuf sa doom dimbali sa doom. ba gis doomu jàmbur war ko mën a dimbali ba pare nga punir ko ni ko du ma la dimbali te doo bouger nga dimbali sa xam nga lu ñu war a njëkk def sang bi cuur. xam mm. nga lu ñu war a njëkk def. nii nii nii nii d'accord ñu ne léegi ñun fii téeméer moo fi nekk téeméer bi nag ñun dañu ñëw ci nguur gi pour pour pour tas ko ci ay anam yu mu yu gënee. Mm. téeméer yooyu ñun ñun ñun ñun nguur dootuñu jëlati. Euh, alors nu ñu waxee juróom-benn fukk. 300 300 euh, francs hmm. du ñu jëlati 300 francs CFA ci 500 francs yi ñun di ko jëriñoo ñun 200 ñu leen koy sànni noonu. ñooñu ñoo koy def ci ñun léegi contraire la pour nekk seen jaam pour liggéeyal seen réew ñun dañuy wàññi lépp. Hmm. mais Sénégal yi gis mais gis nga 4 yi gars di dawal fii 8-8 yi gars di dawal fii mais demal ci dëkku tubaab yi nga xool ndax ñoom loolu la dawal ministre loolu la ñuy non sa ministre yow doo ko gisati yow. déedéet kàkkaar lay dem ak 4000 litres d' essence lañ koy jox say ministre ak say directeurs généraux ñu leen jox alal bu jeex ñuy def ay séminaire di yàq alalu réew mi xaalis boobu nañ ko jéem a dajale pour le moment jox ko askan wi au moins sax ñii di souffrir bu ñu xoolee dañ xam ni parce que dañuy gis ñii li ñuy yor ñoom ñu ko yor changement amul. bërki dem ngay gis ay nit di dem ay Touba Ousmane Sonko il a besoin de jël autant de autant de 4x4 ñu koy mu dem Touba ñaata litre d' essence la. lañu la ñu tuddee cortège bu fekkee ne da nga nekk. côté côté sécurité. non dañ nekk xale nii sur le boulevard Davout. dans le vingtième arrondissement parce que sama lycée dans le douzième la nekkoon ñuy gis ñii Mitterrand nii ñu koy gis muy romb nii sur le boulevard. ñaari moto ñoo ak benn ci benn ci kanam ñaar ci ginnaaw ci benn seen seen genre euh, Citroën yooyu. Mm-hmm. ñun suñu oto président yi ay 1 lay jar. ñun suñu cortège président pour mu dem jam ñaajo dellu si waat rek 20 millions la 30 millions. Eh, parce que ñi koy topp la parce que essence la parce que ay frais la parce que ay perdium la pour ñëpp ñi muy àndal nombre de garde corps yooyu yëpp jaru ko ci réew. Mm-hmm. xaa loolu xaalis la dama bëgg ngeen xam ne loolu c'est de l'argent ça coûte cher xaalis yooyu yëpp boo koy boolee di koy dajale ak yeneen affaires yoo xam ne DG yi am nañ ko milices yi am nañ ko nañu dajale loolu yëpp jël ko dugal ko ci réew mi. Mm-hmm. pour le moment comme ça ñi nga xam ne amuñu sax. ko commencé nañ di comprendre ni dëkk bi ñu ngi commencé di ko defar waaye mënoo ni ngeen ne da ngeen bëgg def ay changement rupture ngeen yéen ngeen di bénéficier des mêmes largesses du pouvoir des mêmes avantages quand on fait sacrifice pour son pays yow yaa da bëgg a nekk jiit mais doo sacrifier pour sa réew. Ah, yow da bëgg nekk ji daal da bëgg sacrifier sa réew da nga bëgg sacrifier mais yow mais boo bëggee ay milliards wala boo bëggee ay confort jënd ko 10 4-4 sa yor yow. yow nguur gi ñoo la koy jox ci say impôt la tey ji nii yow litre d'essence boo fa boo fay 1000 francs litre bi 1000 francs la 650 francs yi ñu ngi koy dugal ci ngeta état bi pour ñoom ñu am ay ay ay carburant bu doy pour ñoom ñu am ay oto yu baax pour ñoom ñu mën a jël avion di dem di ñëw pour ñoom ñu mën a dem ca ay séminaire mmh. voilà yaa ngi wax réew bu sonn réew bu sonn. Mmh. réew bu am problème ñëpp war a yëg problème bi. yaa ngi wax waaye tey ministre mmh. sénégalais. moo ëpp ngëneel ministre waaye Suède prison yi dañ leen di dañ leen di dañ leen di tëj parce que parce que prison yi léegi fi dañ leen def ay ay HLM lañ leen def pour ay nit di fa dëkk ndax prison yi ñoo wàññeeku. Hmm. xam tax wàññeeku parce que nit ñi parce que parce que kenn defatul ay jéeya ndax égalité moo am foofu gars yi ngi toppatoo da dangay amul xiif. amul am soxla amul bëgg a fay sa loyer huissier ñëw di la génne état bi moo koy fay parce que xaalis boobu dafa am bu ñu koy jëlee ci ay impôt Ah, waaye ñàkkal ñàkk kii nga xam ba huissier bi ñëw fekk la ci bunt kër ba toroxal la ci diggu ci diggu mbedd ci fu Europe da soxla dara léegi nii nga ne yow 150 mille ngay fay ngay fay salaire par weer 150 mille lañ lay ngay fay loyer par weer boo demee ba liggéeyatoo dañ la koy fayal ba nga mën loolu wóor na ma ni alxuraanul karim bind nañ ko ci alxuraan waaw yooyu yëpp nañ ko gis moo tax ñu ne euh, bind nañ ko ci de dem leen ko mi ngi ci Coran bi bind nañ ko loolu mooy ndimbal dimbal sa mbokk jullit. moo tax ñoom dañ koy def ñoom ñun duñ ko def. loolu yëpp am fële euh, Occident ba pare euh, Sénégal comme li nga wax pression familiale bi ak pesanteur social bi yooyu yëpp bokk na ci mooy li nga wax fële ñee salaire yi ñuy percevoir. ku ci gën a tuuti li muy am rek. waaw yooyu yëpp ñun ñu koy gis di gis seen proche di gis ñeneen ñuy dem ak ñëw gis ñuy tabax gis ñuy def yéen yow nga nekk Sénégal gi di liggéey. munoo def dara si sa addina waaye léegi na yow amee 200000F di fay di fay di fay loyer yow na nga nga ne yow. yow xanaa bëggoo bugg un million par weer. mais booy dem nga dem ko ci anam boo. xamante ne tamit man sama yoon nekku ci. xam naa ki jaaxle moom. moom. Euh, fi mu yaakaar ndimbalam te gisul ku ko dimbali rek la jëm. mais mais dégg na mais. parce que fële gis ku leen di kii nee na dafa feebar. Ah. chef chef de kii bi capitaine capitaine bu bateau bi ñu jàpp. nee na ak dugal ay doomam ci biir moom tam yóbbaale ay doomam jël bi xam jël risque pour ñeneen kese ak ay doomam moom lu xew baax na nee na dafa feebar bu demee day faju xam naa leen moom dëgg la buy dem di faju buy dem di faju te danañ ko téye nag ba fi ñu yaakaaree ni tane na bu fekkee dañ koy yóbbu ñu doog a xool. parce que man gis xool ñu lay ku nekk ci mbedd tëdd da gis ambulance ñëw rek jël ko noonu la ko yóbbee. te lijjantiwuñu loolu ak mhm. yow da kii sax man fanweeri at. gis naa exemple yu bari li ñuy wax ni mënuñu ko waxtaanee fii dama ne ces gens là quand ils mhm. man mënuñu bokk mais nag ci mais anam bi ñuy demee nag Aliou loolu mooy le problème bi lan nga si bëgg. non di jël ay bateau di dem tamit ah, jël ay bateau di dem da ngay xaru loolu xaru la tamit jël bateau aussi di dem ak lu metti metti lu mu ne dara jaru ko daal man xam man man xam naa daal ni daje naa ak nit aéroport Madrid mu ne ma grand na nga def ma ne ko maa ngi fi rek mu ne ma waaye grand man de dama xaw a tiit quoi ma ne ko looy tiit mu ne ma non man grand man mosuma dugg avion ma ne ko ma yow looy wax ni mosuma dugg avion mu ne ma non ñun man y a 3 ans la non xaw ma 5 ans la ma wax foog naa 5 ans ou 6 ans la la la la la la laa ñëw Espagne waaye maa ngi nii doog am kayit bërki dem rek lañ ma joxal kayit sama patron moo ma dimbali ba ma am kayit mu ne ma dawal am paas dem seeti say mbokk Touba mais man bi may ñëw bi may ñëw fii euh, gaal laa jël man wallaahi non c'est ça mu mu mu ne dafa ragal jël avion parce que mosu ko jël xamul li xew mu gis ma ma toog ma di xaar sama bopp. mu ne ma. mu ne mu mu ne mu ne ma moom mi ngi doog mu expliqué ma lépp li xew ñu sànni ñi ñu sànni ci ndox mi waaye moom rëcc na. mu ne patron mi ngi doog am kayit bërki démb patron moo ko jëndal démb gi ne ko demal nga seeti sa mbokk yi parce que ça fait juróom benni at presque gisul jabaram te bi muy dem jabar ji dafa ëmb. Hmm. waaw. Ah, mais nee moom. am na ñoo xam ne dañ leen sànni ci ndox mi. ah am na ci benn famille boo xamante ne yoof du ma jugee nii foofu laa jëm. Mhm. mais am na ci ndaw su nekk ci kër gi jëkkëram. Mhm. ak magam bu góor. ak ay magam yu jigéen. Mhm. yaa un ñu ngi toog di dundee yaakaar. di leen xaar te xamaguñu fu ñu ne. ndekete yoo. ci gaal gi leen jël. lii sama problème mooy. waaw demagul. te gis li xew. lu ñu xalaat ak luy seen solution. te seen xel seenum xel nekk ci dem. te bëgg nañoo dem. Oh. Mm-hmm. te gis nañu li xew ci ñi dem. ñi demagul te bëgg dem. Mm-hmm. lan la nguur gi di xaar ci ñoom. Mm-hmm. ay déy ak ay naqarlu. am na lu ko ëpp important mooy gëstu ñi demagul. waxtaan ak ñoom li tax ñu bëgg a dem. nga dimbali leen ci ba seenum xel du nekk ci dem. loolu di dimbale. Euh, wut ay société wala wut ay liggéey yoo xam te danga koy encadrer xale yi. Mhm. yéen kat yow da nga doon jaay. Mhm. ndox ci mbedd mi. Mhm. yaa ngi ciy xalaat am 200 journée bi 4000 la. weer wi nangam la léegi ñëwal ma jël la nga def liggéey bi weer wi ma fay la lii. waaw jëlee. dafa am benn affaire boo fi boo leen nee toog leen. Hmm. ñuy liggéey nga utal leen liggéey. Hmm. ñuy fayeeku loo xam ne. mun hmm. nañu si dundalee seen. seen njaboot mel ni man may fayeeku loo xam ne man mii dégg nga euh, euh, euh, mënumaa régler. mais salaire senegal moom mënta régler problème. waaw loolu rek loolu loolu. salaire yu Sénégal mënta régler mu sénégalais ndax tey fii duñ toogee nii nga yor salaire. ak salaire boo mënti yor. ci ci gouvernement bi nii salaire boo mënti yor. du ma toogee ak yow wax la ci sama programme lu may daj parweer sa salaire mënu. waaye du mais du ñëpp. waaw bi. xam nga dëkk boobu ah. moom nga gis chaque jour. Hmm. bu ñu génnee léegi ñu doxantu ci VDN bi. nga ñaata immeuble la ñuy tabax par jour immeuble yoo xam ne juróom benn weer la immeuble yoo xam ne immeuble à milliard. voilà xaalis yooyu fu mu jógee. ci ñoom. waa léegi dëkk lu xanaa du impôt moo koy dundal. waaw doo ko jëli. <laughs> waaye nag ki ko war a jëli. ki ko war a jëli. xëy na ci loolu la yaakaar moom moom. pour mu nekk moom milliardaire moom en tant que fonctionnaire. Mm. d' accord ñu ñëw ci beneen point balaa temps bi Dame Aliou déclaration de politique générale et dissolution de l' assemblée nationale le quiproquo. voilà beneen problème ngoog. Mm-hmm. instabilité yi ñoo indi problème ci réew mi. au lieu dajaloo ñoom ci li ñu bëgg. Mm-hmm. te muy dëgg ci ñoom. mu doon fexe def seen kamtalaay kàttan ba mm-hmm. organiser wu ba dëkk bi stable ba ñu avancé loo mbir yi ndax réew mi mën a dox. déedéet ko def xam lan la ñuy def. di xëccoo. xëccoo ay position mhm. xëccoo ay place tegante deal tegante xel pour continuer di nguuru parce que xam nañu ci nguur rek lañu ñu mën a yaakaar pour am dara pour am ay teranga ci Fatou xam nga lu tax parce que gis nga mhm. euh, boo gisee ñuy xeex nii yëpp xeex ñu parce que dañoo bëgg réew mi mhm. parce que ñoom ñëpp bu fekkoon ñoom ñëpp dañuy xeex pour bëgg réew mi rek am ci yoo xam ne dañ ciy déggoo mais booy gis ñuy waxante ci seen biir day mel ni benn haine moo am ci entre entre ñoom ku nekk ngi teg say stratégie def nu muy def Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ñu ngi góorgóorlu pour fexe nu ñuy def pour téye réew mi ñu ngi xeex aussi pour fexe nu ñuy def pour déjjati leen fi ak moyens yu ñu ko mën a defee la. moo tax tey nii problème bi am entre justement une déclaration de politique générale boo xam ne réew. constitution moo ko wax moo ne premier ministre bu ñëwee. dafa war a def doxul sax dafa war a def day def. déclaration de politique générale à un moment donné un président de la république qui s'appelle Bassirou Diomaye mu réorganiser waat mbir mi du dugg ci détail ne léegi euh, déclaration de politique générale eh euh, dinañ ko def le 13 mooy aju mm-hmm. problème bi moom mooy mm-hmm. ci ci loolu mu décidé moom président ci décret ci ci ci kii yëpp ci maxaama yoon jox ko ko mm-hmm. dafa am ñoo xam ne nee ci suuf assemblée nationale dañ ko war a dissoudre parce que le 12 lay mat ñaari at yu mat sëkk. ci lay président bi di am droit dissoudre assemblée nationale maanaam bu ko dissoudre le 12 kon déclaration de politique générale bi nga xam ne constitution dafa ne. Mhm. président euh, premier ministre daf ko war a def ba président de la république décidé ni dina ko def le 13. Mhm. kon xëj na peut-être que ni. Hmm. le 12 bu Bassirou Diomaye Faye dissoudre assemblée nationale. Hmm. le 13 Ousmane Sonko du mës a def maanaam mu def déclaration de politique général loolu nga yaakaar. déet nee na. le 13. Mhm. déclaration de politique générale premier ministre dina dem def ko. le 13. waaye le 12. mooy délai bi nga xam ne. waaw ci les assemblée nationale am ñaari at. waaw ci les président bi léegi am droit. waaw am droit. waaw dissoudre. waaw assemblée nationale. waaye ñu bari nee nañu. waaw le 12. Mhm. président de la république. dina dissoudre assemblée nationale donc bu ko dissoudre maanaam dafa def loo xam ne. mooy mooy li li li li li mu bëgg moom ak Ousmane Sonko. c'est-à-dire que premier ministre boobee bañ a def déclaration de politique générale bi nga xam ne constitution bi moo ne daf ko war a def te président bi wax moom ni. Euh, wax wax ni wax mu leer. ni ni le 13 dina ko dem def. d'accord maanaam. Mhm. en fait. Mhm. Bassirou Diomaye Faye dafa wax loolu. Mhm. pour se dédire après. maanaam dafa wax dara pour tuur lëndëm gaa yi. nee na le dinaa ko def. dina ko mhm. def. waaye le 12 moom dafa nar a dissoudre assemblée nationale. li war nag. mooy li constitution wax. ak li président la république wax. li constitution wax mooy. premier ministre dafa war a def déclaration de politique générale. parce que déclaration de politique générale mooy tax yow. Mhm. nga xam ni. réew mi fan lañ koy jëm. fan lañ koy jëm wet kon le 13 la ñu wax di la jaajëf. ah suba le 12 gannaaw ah? suba jeudi 13. incha allah suba la suba la mët. suba le 12 mais le vendredi. il faut que ñu xam. il faut ñu xam. Ah. ndax Ousmane Sonko dina jàkkaarloo nguur gi. Euh, réew mi réew mi ci biir assemblée nationale parce que ñoom ñoo représenté réew mi suba lañ ko xam suba bu minuy jotee rek. Ah. kon li moom dina jàkkaar bu bu dee. léegi léegi bés bu ko deful. waaw mooy ce serait la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Euh, ñu nommé un premier ne ko da nga war a dem def déclaration politique générale président bi jàppale ko si ne ko doo leen ko def yow constitution faalewuma la. merci beaucoup Aliou Sow. donc euh, ci actualité bi caution moo ko wax pour mu def ko. di dinañ ci ñëwaat incha allah nee naa la yow caution faalewuma la sama waa ji du mës a dem jàkkaarloog yéen. d' accord merci en tout cas ci euh, li nga indi ci actualité bi temps bi moo ñu xoj dañuy dem xool Amine ñu dem xool suñuy partenaires yi ñëwaat ci plateau bi dem ci émission jonge